Hmm. waaye maanaam mawsul mi amee maanaam lëfi hmm. maanaam laajte mi taxul ñuy wax ni hmm. ki may yoxum ku jóg ak ma jóg dafa mel ni yow miy wax sa jóg mën naa nekk waaye jóg ak keneen sax tala ci maanaam man moo ko ci wane kon man bi sartiya la moo tax ñaari fin li ba topp muy yaquumu ak aquumu yóbbu nañ jasam mm-hmm. ak man ñu ne yokkum akum mm-hmm. man li si mi sarta la mm-hmm. tey jasam ñaari fenel ju jàkk ji mooy fenel yi sarta ju ñaareel ji mooy jaawum tey payam ñu binaa ko ci sukkoon mu nekk barbu rafaa tey mubtada yokkum mooy fenel yi sarta jasam nañ ko man mandragam jasam sukkoon na gën a huwa bu nekkee barabu rafa di fane mm-hmm. aqum mooy jawaabi sarta si tey payam mm-hmm. desam nañ ko man mm-hmm. mandargaam desam su koon gi na gën ana bu nekkee barabu rafa di fane jumla bi yokkum aqum mooy nekkee barabu rafa de xabari man mi ak may yaamal suu'an yujisa bihi man mi maanaam sarta la mm. ñaari fin ko topp mm. benn bi mooy yaamalu mm. beneen bi mooy yujjisa yëpp la boole jasam ñu ne yaamal ne yujjisa loolu moo tax ñu indi saye mm-hmm. <coughs> man mi maanaam sa man li simi sarta la mm-hmm. tey jasam ju jëkk ji mooy fin li sarta si ju ñaareel ji mooy jawaabum tey payam بنا کو جسو کو سنے کے بر برفا کئی مبتدا یا مل میسے لساتا جیسا ہم نے کو من ماندر گام جیسا ہم سکون گی نہ بن ہوا منے کے بر برفا دیپائیں علم سو ان دیما علم کہیں کو نہ سب ماندر گام نہ سب ہم پتہ یہ جیسا فعل مدار عامل بنا چلی رہے رہلا مجاو ساتھ سے تیم jësam nañ koog man mm-hmm. mandargaam jësam xasab lii mm-hmm. ndax sama muj daraja xasab lay jësamee mm-hmm. li sama tegtal lii lu ñu xasabee mooy fataa gi na gën a huwa mu nekkee barab rafa dana yebi sangelam ba haraf wuy jar la alaa ñi binaa ko ci kasra mu nekkee barabu jaar jaar jeeg majruur ji aju ci sa jumla bi amal suwaari sabihi mooy nekkee barabu rafaa mm. de xabari man mm-hmm. boobu mooy bi ñetteel ci jëfam ñaari feneel mm-hmm. war rabion aji ñeenteel ji mm-hmm. bi ñeenteel ci jëfam ñaari feneel mahma mahma la mooy mahma ndax bu qawli yi ngir waxi taala kawe na li borom bi wax ci alquran ne مهما تاتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين مهما بجنتك يسرت لا تاتي ميسان لسرت من كجسا جملة ما نحن لك بمؤمنين ورد جواب من كبر جسم فالموطن عندي في آية مهما لسم سرت لا أي جسم نار فعل ju jëkk ji mooy feneeli a ju ñaareel ji mooy jaabam tey payam ji mm-hmm. binaa ko ci sukkoon mm-hmm. mu nekkee barabu rafaa mm-hmm. tey mubtada taati mooy feneeli sàqasi jësam nañ koog mahma mandargam jësam xasaf yaa ndax feneel bu mu garagee xasaf lay jësamee si tegtal ci ne yàlla ci asafee mooy kasra gi bu na anta muy faneelam ndax damir mutakallim la ñu binaa ko ci sukkoon mu nekkee bara mm-hmm. mm-hmm. bu nasab di maf'uul am taati baa xaraf buy la alhaa ñu binaa ko ci kasra mm-hmm. mu nekkee bara bu jaar jaar gi majruur ji aju ci taati min mi minam bayaan la tey jaar ayatin jar nañ ko min mandargaam jaram kasra gi feeñ ci min lam gi lamu taalil la tey jaar mm-hmm. tas xara fi'lun mudaari' muñ na sabak ak buñ na ci gannaaw lamu taalil mm-hmm. mandargam nasabam fataa gi mm-hmm. nag mu ne anta muy fa'ilam naa damir mutakallim la yóbbu naa ko ci sukkoon mu nekkee barabu nasab di maf'ulam tas xara baa xara jaar la alhaaji bi naa ko ci sukkoon mu nekkee barabu jaar gaal géej mooy juróor ji mm-hmm. ak ci tasaara mm-hmm. jumla tasaara mm-hmm. mu amul barab si arab bi si la si am anak si laam ngay masdar mu nekkee barabu jar dama juróorul laam mooy li sixrika iyaana li sixrika iyaana waa tàmbale nañ ko jawaabi sartasi maami maam xijaasiya la tey liggéey liggéeyu laysa mm-hmm. dafay rafaa lisim nasab xabar mm-hmm. naxnu mooy lisimam ñu mm-hmm. binaa ko ci làmm mu nekkee barabu rafaa ko ci làmm mu nekkee barabu rafaa laam xarafu yi jar la alkaaf ñu binaa ko ci fata mu nekkee barabu jaar jar jéeg ma juróor ji ci muuminiin bi moominin nga ne baa gi jaru silla la silla mooy said hmm. loo xam ne dafa ñëw ci wax te amu fa maana hmm. mooy said bu yàlla quran duñ ko tuddee said hmm. silla la ñuy wax dégg nga moominina mooy xabari maa dañ koy nasab mandargaam nasabam yaa gi nattale ci mujj gi dafa war a am yaa gu doon mandargaam mi lu ko teree feeñ ہو برب بھی یا گو ہاتھ کرنا تو خارا پوجا شیل بار کن دلی گاؤں میرے مال ملا مساؤن نہ مرغی لوگ سولہ ہوں گارابی یا گو ہاتھ کرنا تو جرو جا رہی noonu wartee nañ ko tamit woon ci alxuraan ma jumla fa maa naxnu laka bi muminin mooy nekkee barabu jëfam da jawaab sotta si tey fayam jumla sotta tey jawaab di nekkee barabu rafa da xabari mahma ñu jàng loolu